waaw yow war wàllum yokkuteef boobu sax si leen tegee woon loxo kii di Guy mari Marius Sagna ay naataangoom nekk loon foofu noonu bàyyi na leen moom ak yeneen ñaari étudiant moo si des est-ce que kii di Guy Marius Sagna nekku ne dafay déranger tamit lu mu loon nekk si côté kii di Sonko ak wàllum éco bi nga xam ne taxaw na moom mu bokk si France dégage waaw xam nga li ma jàpp mooy euh, Guy Marius Sagna sénégalais la comme sénégalais yëpp mhm. am na sañ sa am lu ko naqari mu dox dem na bu ànd naa nit ñu jàpp ñu jàpp ko ak i nit ñenn ñi bàyyi nañ leen ñi ci des ñu ñoom ñu téye ko fa loolu jàpp naa nag lu garaaw la parce que état de droit mooy état boo xam ne ñëpp ñoo yem ci yoon état de mooy état boo xam ne dafa am waa kumba am ndey ak waa kumba amul ndey or boo xoolee mbirum mbirum Guy Marius Sagna ak Babacar Diop dafa mel ne Babacar Diop dañ ko ragale waa syndicat enseignants yi ak université moo tax ñu bàyyi ko téye Guy Marius Sagna loolu ab état daf ko war a jomb moo tax may sàkku ci autorités judiciaires yi ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi këram suñ ko soxlaa bu ñu ko woo dana dellu si di sàkku ci Sénégal yi aussi ñu gën a mobiliser wu pour ñu mu génn fa parce que combat bi muy manee kenn ku ne ci noonu daf koo war ndaxte la ñoo teg Sénégal yi lu diis moom mu jóg ne loolu wur fi am kon encore une fois téye gañ fa téye Guy Marius Sagna pour man c'est une violation de la légal de la légalité devant des citoyens devant la loi maanaam jëfu kumba am surtout su kumba am ndey ak jëf su kumba amu ndey la te loolu jàpp naa ne du sagu démocratie du taaru démocratie te loolu dañ cee war a dellu encore une maa ngi masawu Guy Marius Sagna ci li nga xam ne mi ngi koy di yëg jamono ji te di ko encouragé te ñaan waa Sénégal euh, ak ak ko ak nam tuddati ñoo lànk maanaam collectif ñoo lànk ñu gën a kon ni xeex bi te ñoom itam ñu mooyu xeex boobu ñu def ko xeex boo xam ne xeexu politicien lay doon c'est-à-dire que bu fekkee ba bañu bañ yokk courant bi la nañ jàpp nañu xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ak waa APR ñoom itam bu courant bi yokkoo dana leen dal kon nañu dem seeti Benno Bokk Yaakaar nañ seeti waa APR waxtaan ak ñoom boole leen ci waxtaan yi su ko defee mu nekk un combat national su boobaa jàpp naa ne président de la République bu yëgee ne maanaam mbooloo réew mi lépp nee nañ ko ñaan nañ ko mu wàññi prix courant bi man booba gëm naa ne dañ ko wax ne ñoom sax seen bopp war nañoo mën a dem demander audience dem ci président de ne ko dañoo bëgg nga wàññi ko man xam naa loolu bu ñu ko defee. waaw bu ñu toogee moom dañ ci am ndam. waaw monsieur le ministre si manifestation bi ñu nemmeekoo nemmeeku si euh, policiers yoo xam ne dañoo nekkoon en civil. ñii sol bay faal ñii sol kii moo ñoo ñuy gis ñoo ñu mënate ay euh, caat bu Y'en a marre ay yeneen activiste yu doon yëngu ci manifestation est que bu ñu gisee loolu ñun sénégalais waruñoo tiit un ah. état de droit mm-hmm. un état boo xam ne mun nañu carrément c'est un état démocratique euh, ñu gis ay policiers yu nekk en civil te yooyu ci pays yi loo ko gën a gis moo nekk pays yi nga xam ne euh, ils sont gérés par des dictateurs xam nga boo xoolee ci démocratie yu baax yi mm-hmm. police bu fekkee day def maintien de l'ordre maanaam di tas ay nit yuy manifester wala ay ay casseur police danañu gis police yoo xam ne dañuy sol civil waaye dañuy takk brassard loo xam ne dañ ciy bind police parce que police du jëmm ji jëmmi policier bi lañuy ñuy respecté bi mooy incarner la république kon moo moo tax may ñaawlu policiers yooyu ñu soloo ay jiin délavé ak i mbaxana ak yére yi Baye Fall d'abord tooñ nañ Baye Fall yi parce que Baye Fall nit ku bund xataal nit kon encore une fois loolu moom nañ ko teg ci bu ñuy dugalati ay policiers ci maintien de l'ordre nañ leen takkal ay brassard pour nit ñi xàmmee leen parce que bu ñu ko defut ëllëg ku fi nit ku fi policier tey te xàmme wala te warul la ne policier la bu la nga nga nga moom bu méttee méttee aw loram mën na kon ne que pour la sécurité des policiers dañu war a takkal ay mandarga yoo xam ne dañ leen di xàmmee ku leen gis xam ne ñii ay policier la waaye policier bu sol ay yére yu Baay Faal loolu moom xel waru koo xalaat. policier bu sol ay jean délavé te kenn xam ko loolu xel waru ko xalaat loolu état de droit nangu ko. waaw waaw xoolal gendarmerie xam nga gendarmerie loolu maanaam policier yu loolu moom policier dañoo war a sol tenue pour nit ñi xàmmi leen parce que xàmmi gi ñu leen di xàmmi mooy tax war leen a jox seen ñu toog ñu toog leen seen jox leen seen tooguwaay xàmmi gi ñu leen di mooy tax ñu nangu. police ne la jaaral fii nga jaar parce que wolof yaay def ne basoo la du wax moromam jógal ma toog waaye nit ki bu fekkente ne ci jëmmam gi wonu la benn mandarga ne policier la su la sant dara bu nga lànk ñu amatee manifestation ci ñi nga xam ne ci maintien de l'ordre moo tax ñu ñëw fa nañu sol ay tenue ñu xàmmi leen wala ñu takk brassard ñu xàmmi leen te bañ a génne ci di solaloo ay police ay bayfal loolu moom bu ñu ko defut daañu moom bu ñu def ndànk daañu am jafe-jafe yi. waaw ndax Baye loolu du liggéey. waaw monsieur le ministre si lu gàtt rek waxtu bi mu ñuy xoot ñun may signaler ko lu ñu desee euh, bariwul mhm. euh, am na beneen manifestation bu amoon tamit foofu lee si Mbour nga xam ne diggante euh, pêcheurs yi ak ñii di am na jàmmaarloo bu métti bu amoon sa diggante ak ñoom ñii di takk der yi. ndaxte ñoom dañ loo ñaawlu rek benn usine de transformation de farine bu ma juumut bi nu fa nar a def. mu indi woon ay euh, jafe-jafe yu métti ak tamit ay nit ñu bëri amoon si ay gaañu gaañ yu métti yow ban lecture euh, moo moo moo lay animé fu mu toll nii si senegal nu muy doxe damay def mooy d'abord lu lool li xew Mbuur démb. Mhm. parce que ay policiers bu ñu demee ba ay civil yor ay xeer leen sànni ñuy daw. Mhm. su boobaa mën nañu wax ne république bu Sénégal moo màbb. Mhm. parce que police ak gendarmerie ak armée. ñoom ñooy kenn yi nga xam ne ñoo téye la république ñoo téye la démocratie démb la république du Sénégal a été attaquée à Mbour loolu man duma def lu dul ñaawlu ko di sàkku ci waa réew mi yëpp ñu ñaawlu ko bu ma waa réew mi nag muy classe politique muy société civile ñëpp a ko war a ñaawlu parce que li am démb Mbour lu garaaw la. c'est une république à genoux. ak couché même laay wax démb. parce que ay xale yor ay xeer di sànni ay police yi ñu daw rawatina ci même ñi ko doon filmé da nga ñuy ree alors que xamuñu ne république bi li ko tëye mooy les forces de défense et de sécurité forces de défense et de sécurité nekkaluñu fa seen bopp nekkaluñu fa Aly Ngouille Ndiaye nekk fa lañu fa dem ak seen république bi lañu fa nekkal maanaam ñun ñëpp kon encore une fois est-ce que tamit éducation civisme tamit civisme bi tamit desul que non non le problème c'est le Sénégal mooy li mu am mooy problème de citoyenneté la réew mi am mhm. c'est-à-dire que ici suñu déficit en citoyenneté maanaam dañoo ràgg citoyenneté maanaam nit ñi xàmmewuñu république xàmmewuñ gouvernement xàmmewuñ préfet xàmmewuñ xam ñi xàmmewuñ dara ñaar li nga xam daal mooy lu ñu bëgg. ak tamit euh, ak tamit mun nañu wax ne fu mu toll nii police ak population euh, elle se regarde en chien de faïence. xam nga loolu dans toutes les démocraties police ak population yi dañu am jafe-jafe. Mhm. waaye nag jafe-jafe wërta àgg ci li xew démb Mbour am moo tax ma jàpp ne man maa ngi koy ñaawlu di ko dénoncer di ñaan ñëpp ñaawlu ko di sàkk ci gouvernement bu Sénégal mu jël matukaay ñi nga xam ne ñoo doon manigancé xale yooyu. Mhm. parce que ñu ngi leen di wax ne ay usines. Euh, te loolu dara du ci dëgg quai de pêche lañ fa waroon a defar quai de pêche bu ñu ko defee ñoo ñi ñi ñi pêche ñi napp ñoo ko tax a jóg kon may sàkk ci gouvernement bi ñi nga xam ne ñoo dugal ci bopp xale yi ay ay wax ju dëgg ba mu jur bi na jël ay matukaayam topp leen ba gis leen teg leen daan yoo xam ne ëllëg du seen xel du ko xalaat parce que nag li am démb bu fekkoonte ne police ànduñu ak seen sago mën nañoo taxaw jàkkaarloog nit ñu tiire leen ci seen kaw te boobaa musiba lay jur kon encore une fois maa ngi ñaawlu li xew Mbuur di sàkk ci gouvernement mu jël ay matukaayam ña nga xam ne ñoo ñoo ñoo dugal ci bopp xale yi loolu bañ def ko ak ku ca bokk ñu teg la daan yoo xam ne ëllëg benn Sénégalais dootu ko xalaat loolu nag bu ñu ko deful nañ xam ne on met en insécurité les forces de défense et de sécurité ñoom nag bu ñu nekkul sécurité ñun suñu sécurité moo ciy gën a sànq. waa ñu jeexal euh, ak euh, benn euh, question ce compagnonnage ak Macky Sall lan la lan mooy lendemain bi. non lendemain bu baax rek man Alliance pour la République ci laa bokk. Euh, damay wax toujours ne président moom mooy sama président parti maa ko tànn. mais est-ce que léegi fu mu toll nii euh, monsieur le ministre taxawoo taxawaay euh, opposant déedéet mu ko ci yàlla tere cest à maa ngi wax samay xalaat waaye mënu maa nekk opposant Macky Sall man maa ko bokk naa ci ñi ko àndoon moom ba muy jafe. yàlla dogal na ah génn ci jafe-jafe ba nekk président la bi ñu fal ko mandat falaat ko mandat. comme mun neen wax ne mun nañ gisaat euh, monsieur le ministre. oui si euh, biir gouvernement bi wala si wetu Macky Sall la ay moom mën naa ñàkk loolu moom wax dëgg lu ma soxla. waaye li xam ne moom laa moom laa fas yéene daal. Euh, mooy lépp loo xam ne xalaat naa ko. ci lu baax kon fu mu toll nii gedd nga ndomba tànk non non non c'est pas ça du affaire gedd yooyu du affaire gedd maanaam damaa jàpp ne maanaam moom ci boppam moo seet ba xam ne jafe na pour nii may doxalee mu boole ko di ma takkal ma tànk mu dindi ko kon dama jàpp ne ginnaaw man bon xëy na moom li mu bëgg mooy ku ne mot ku munul ne mot ne mot te man nag yàlla nattu na ma munuma ne mot kon jàpp naa ne mot gi ci wàllu administrativement mooy mën a nekk naa li ci des nga xam ne sama digganteeg moom la mooy su ma gisee lu baax wax ko ko su ma xalaatee lu baax wax ko ko su ma gisee lu ku baax wan ko ko su gisee lu baax wan ko ko loolu moom dara du ci dindi maanaam keroog bi nga xam ne moom a toog dama ne ko soo demee ba ànd bi diis ci yow li nga ma jox moom jël ko man nag li ma la jox du ma ci dindi dara muy cofeel gi ak jàppale gi man nag li nga xam ne moom lay sàkku ci moom mooy benn parti bi ñu jéem koo defaraat ñaar ñii dugal ci boppam ne ñi mu àndaloon démb wàccoon ak ñoom sa à dire mos nañ juróom-ñaari at euh, dañoo war a dañoo war a noppalu loolu na ko dindi cim xelam ñi koy gëmloo ne ko ndam lii moo ko jox boppam ñi ngi koy nax parce que bu doon moom képp du falu ndaxte bi muy jëbaat laajaat campagne bi fu mu dem fu ne bu ko jubee ay junni nit ñoo koy kar ay junni nit ñoo koy dalal ay junni nit ñoo koy gunge junni nit yooyee yooyee ay nit a leen fa indi jàpp naa ne kon li mu war a gën a def mooy benn gën a téye ak njabootam muy alliance pour la république gën a téye coalition bi parce que loolu mooy tax su ubbi ko jox loxo euh, euh, opposition bi nit ñi mën koo comprendre waaye su fekkente ne daa bëgg a jubóog opposition bi en même temps mu indi jafe-jafe digganteem ak parti am yaakaar boobaa dana am jafe-jafe digganteem ak par am waaye bu defoon daal dina am jafe-jafe diggante mu. ñu lay jaajëfal bu baax euh, monsieur le ministre euh, si wuyu bu ñu wuyu si fii si euh, Sénégal set hmm? say kàddu yu mujj. man maa la war a maa la war a jaajëfal maa la war a jaajëfal ndax yaa ma may occasion ma mën a waxtaan ak réew mi kon bu fekkente ne li ma fi wax ah baax na maa ngi koy sant yàlla subhanahu tax taala su fekkente ne ay rëq-rëq am na ci dem maa ngi jégalu waa réew mi tax ñoo xam ne rek nit nit a mat a man ndax man comme li nga wax sànq ancien député ancien ministre. waaye nag li nga xam ne naa ko yéene doon tëdd nekk mukk ancien mooy nekk taalu bépp Sénégal. loolu moom fas naa ko yéene <laughs> merci beaucoup euh, Moustapha ancien ministre auprès président Macky Sall moo fi nekkoon tey euh, suñu invité fii si euh, Sénégal 7 si la grande interview euh, politique merci à vous euh, qui euh, internautes yu Sénégal 7 maa ngi remercier aussi toute l'équipe technique ak rédactionnelle bu Sénégal 7 Euh, bu ñu accompagner woon euh, si wàllum euh, liggéey di liggéey bi di leen di jox dig daje incha allah si beneen numéro bu beneen ak beneen invité merci et à très bientôt.